salaamaaleykum sunu mbokk internet yi ñu ngi leen di siyaar baax di leen di amaat kontante bu baax ci ñi nga xam ne ñoo ñuy faral di seetaan e, nekk ca bitim réew rawatina immigré yi saa su ñuy xaar émission bi nga xam ne yàgg nañ di ko muy émission ëttu Tooxiduna daanako ku ne xam na li tax émission bi taxaw dëgg-dëgg moom mooy jàpp nga xam ne immigré jàpp nañ ko te ko bàyyi ci bile émission. tey nag euh, xibaar ba nga xam ne moom moo fi yegg si day xibaar boo xam ni ka ko indi daanaka immigré la nekk ca Italie ginnaaw bu mu déggee keroog ñuy wax ni am na benn góor goo xam ni moom Modou Modou la waaye soxnaam ba mujj di ko trahir daanaka di ko njaaloo ak beneen góor moom góor kooku mu woote daal am lu mu leeral ci diggante moom ak ki nga xam ni moom mooy soxnaam si mu njëkkoon am. yàlla dogal ñoom ñaar ñu tàggalikoo muy wax ne nag soxna soosee nga xam ni moom la njëkkoon am ñoom ñaar ñu tàggalikoo waaye histoire boo téye ne ko at yu bari yoo xam ni munu ko nettali munu ko wax kenn loolu nag mu doon parfois ay mbir yu diis ci ba du ko mën a waxtaane kenn koo xamee ni daf ko jege sax mbaa ko sori ndax tiis bi mbir moomu tiis waaye moom jëmm jooju dafa am soxna soo xam ne def ko amee woon waaye ni mu amee soxna sax doon amin boo xamee ni daanako moom tamit jar na def ay njàngat bu baax a baax ndax dafa fekkoon soxna sax am ku mu doon ngoronteel ci réew mi ndax bu njëkkoon sénégalais dañ doon tuumal ne mudu mudi bu ñëwee senegal fekk la sa soxna mbay tam fekk la sax ak sa coro eh, dañuy fexe duñu ko nangoo ndax boobu bu njëkkoon jigéen ñi dañoo soppoon lool immigré waaye moom ci condition yooyu la jëlee woon soxna soosu ndax soxna si dafa am benn waaye bu doon nekkal ba fasante naw mën a ab loolu nag euh, tax mu bàyyi waajooju daal di ànd ak immigré bi waaye nag bi ko immigré bi fase daanaka wax na ne ci yooyu jamono def na ci lu toll ci ñaari million ndax booba njëkkoon sëy bu njëkkoon daanaka comme comme bariwul woon lool comme tey waaye wax na ne moom def na ca ñaari million yu bari ci yooyu jamono ginnaaw deux million yooyu nag utal na ko fu mu dëkk di ko jox dépense gu mat sëkk di ko taxaw waaye ndeke am na leneen lu xew ca lan moo xew ci boobu mbir mooy soxna si bi ko waa ji bàyyee ci réew mi ndax mënu ko ko woon yóbbu ci yooyu jamono daf ko fi bàyyi woon rek na ne ma toog ñaari at daal di ñibbisi waa ñaar at yooyu mu toog ñibbisi yëpp wax na ne vraiment daanaka am na ci mbetteel mbeteel gi ci njëkk a am ci boobu jamono bi mu ñëwee fekk na ne ndaw ci boppam ndax moom mooy nettali ndax takk na ko ba am fum ko dugal te itam booba nekkul ci réew mi waaye bi mu koy takk moom lu amoon firnde la ca moom ñu soxna si yàlla tegoon na ci yoon waaye ginaar goo daal diggante bi gis na ne daal bi mu ñibbisee fekkul woon soxna ci mu am ndaw maanaam immigré fa ne bi mu takkee soxna ci def ci ñaari million utloo fu mu dëkk bàyyi ko fi bi nga xamee ni ñëw na première vacance am nga seeti soxnaam war ko jël dafa ñëw fekk soxna si daana ko nekkul jànk mbir moomu nag doon mbir mu ko tiis trop ba mu ndax laaj na ko soxna si benn bis ne ko man daal li ma jaaxal mooy fekk ma ci yow ndaw soxna si ne ko de man de amoon naa ko ba may takk waaye diggante bi daal ci la am gàllankoor waaye gàllankoor daal bu fekkee mën nga ma ko jégal bañ la ko wax dafa doon tamit lu gën waaye waaja wax na ne des fois ci jamono bëgg gi ko bëggoon ak fonk gi mu ko foogoon tax na mu ne woon nag naa ko suturaal daal di bàyyi noonu nee ma daal jote ak moom sama vacance bi vacance ba jeex nee na mu dool daal di delluwaat ca bitim réew waaye ba mu fi delluwaatee nag nee na xel ma toogul ndax la mu bàyyi ca ginnaaw am na lu ko laal ba xel ma toogatul at ma dafa daan dafa jaxasoo ci xelam ndax soxnaam Saal dafay njot daal ne am na leneen lu muy jëf. comme njottu ko nee na ma toog ca bitim réew at ak genn wàll rek ca damay sàqaat yoon daal di ñëw waaye nag bi mu sàqee yoon daal di fexe fexe fexe ba ñëw waaye ñëwam bu mu njëkk ba dafa ñëw jaar Maroc. jaaree Maroc def na fa semaine woo soxna si ne ko man de maa ngi Maroc waaye man de maa ngi bëgg ñëw foofu ci yow dafa am fu may lu may soo ne ko waa baax mu wax ne moom bi mu ñëwee Sénégal déggal bu baax Issa bi ma la bi mu ñëwee Sénégal ñëw këram dal fa daana ko fekk fa soxna sa mbir ma nekk yéem ko yéem waa kër ga. mu laaj leen ana diw mu xëyee suba gi ñu ne ko déet diw da bàyyoo na ko bàyyi woon na ko fi maanaam dem ci yow sab ndigal mu leen ci ban ndigal la demee ci man nga xamal ko daal ni dafa dem ndakaaru ndax yow yaa ne daal daan na ko danga fay ñëw mu fekk la fa mbir mu am lent diiru ñaari fan ndax yooyu jamono téléphone eh, téléphone portable amul waaye fixe yi am amul fenn fu mu xalaat ni war na ko fa mun a woowee daana ko toog na fukki fan ak juróom yoo xam ne daana ko ndaw si daana ko gisu ko ba ñaar fukkeelu fan yi ak teg ci la ndaw si doog ñëw bi ndaw si ñëwee mu laaj ko ne ko waaw ana fan nga demoon ndaw si ne ko daal man daal dama génnoon am fu ma demoon ba laaj yooyu baree loolu nag nekk déggal lii ma la bëgg wax parfois àdduna dina jaral doomu aadama loo xamee ne yàlla xam na ni sax même àdduna bi mu ne sa jaru ko yeneen saa yi nit àdduna dana ko jaral loo xam ne àdduna ci boppam moom sax àdduna jaralul loolu boppam moom ndax keroog bi ñu waree maye ndaw soosu ngir mu sëy ak moodu moodu boobu kenn ci doomu baayu muudu Moodu bi ci boppam nekk bëggante woon na ak soxna sa te doon nañ ko amoon dara daraja nekkoon ci Ndakaaru ndeke kooko moom def na ay pexe ba xam ni bis ba ñuy muur ndaw sa mu war a sëy kër bi nga xam ne la ko waaji taxawal wax na ca lekk yi njëkk ya maanaam ca laax wa ca la kooku def galaaj moo tax jigéen ñu bari bu ñu leen di muur ñu dem sëy ndab loole nga xam ne dafa am laax ñu bari naan la danga koy lekk boole ko ak sa jëkkër ngeen lekkandoo ko ndab loola dafa sensible ndab lu doy waar la ndax ndab loola ca noon ñu bari di profité ndax loola faw nga xool ñi koy togg ña ngi koy sebat dugub ja ñay defar soow la ña koy téye ba séet ba yegsi ña ko war a jox séet ba ak ña tiim séet ba di ko lekk gis nga ñii lu nu war a xool la ci boobu ndab ndax ndab loolu saafara bu ne nga ca bàjjani dañuy xëcc koo ndab loola muy bàjjani ko góor ki wala mu bàjjani ko jigéen ki ngir fexe ba loolee ñuy lekk njëkkante lekk boobu ngeen di dégg du saayir baatin pur la ndax ndab la ñaari gàllaa jàng ca bu famille ku jigéen ki def ak famille bu góor ki def moo tax ci ndab loola lu ne nga ca kon nekk moom la dooyam baayam ba njëkkante def ca gàllaaju topp ba ko ndaw sa lekk xel ma demul ci lu dul doom baayam jojee lii moo waral doomu baayam jooju moo tëdd moom ginnaaw ba mu ko takkee ba indi ko ci kër ga moo ko seet ci aw ngan ca bëccëgu dara kàmm la njaalu ak moom ñu ne waa déet ñaare ndaw sa jël oto fekk ci ca mu jëf leen teg moom ba keroog bi borom këram du ñëw jaare Maroc di immigré boobu dafa fekk soxnaam dem ca doomu baayam joojee waaye xam ngeen émission Eutou Tou na dafa nekk émission bu garaaw parfois mu toog sama bureau sama téléphone di wax même ñi may dëkkal sax duñu xam lu may wax fekk maa ngi traité benn dossier bu sensible ngir wax la fa mu mujjee moom ni doomu baayam jooju mu mujj moom nangu soxna mu immigré moodu moodu boobu nga xam ne ñoom ñaar ni bokk benn baay waaye nangu gi mu koy nangu li tax mu nangu ko fekk na mu joteeg moom ba ndaw si ëmb ba immigré ba gedd ko ci ñaar ñoo xam ne bokku benn baay nga gis ni àdduna am na lu nit di def loo xam ne yàlla xam ne ne àdduna ci boppam moom àdduna buñ ko tegoon ne ko def ko danaan lii da jaraluma ko lu tax àdduna jarul dara parce que kul man alayha fan pouvoir yi nit ñi am day jeex taar yi day jeex koom-koom yeeg bayra yeeg nekkin bu lépp day jee kon àdduna amul importance barewul njariñ pour àdduna amul la njariñ ci sa xel lay traverse yow sa xel am na noo koy utiliser rek dangay ngay gis valeur àdduna day simple ci yow day woyof ci yow mais bu fekkee ni am na mbir yu xam sa bakkan la ci womat ñu lu ñaaw ba nga bëgg koo def li xam ne loolu dara jaru ko amul benn sens gis nga doom baay ba nangu na soxnay doom baayam ba liggéey ko ca laaxatu xew ma yamu ca waaye setti na ko bëccëg daal di njaaloog moom bëccëg parfois sa jabar am gan bëccëg naka gan nga faram la ñëpp yaakaar na ma nga ca saal ba day waxtaan nekk ma ngay njaaloog moom ñu ni waat déedéet sa soxna doom baay ba invité ko mujj koo njaaloo ba mujj koo ëmbal nanu xam ne jigéen dafa sensible rawatina soxnay jàmbur mu doonoon seen émission Ëttu Tooxi doona